Touba xel yëpp dem ci safar rawatina 18 safar muy mbégteem murit yëpp rawatina taalibe yi bàyyeekoo fu ne ngir teew ci dëkk bu sell bi di Touba loole nag tax na ba bu weer wi teroo murit yëpp di safar ba keroog ñuy àgg ca 18 safar ngir waajale ko bis bu màgg ba ginnaaw ndigal lu bàyyeekoo ci xalif général des murit Serigne Mountakha Bassirou mbàkkee ngir ñu dakkal anam bi biñ ko daan defee ba tax na murit yëpp maase ci jëfe ndigalam loolee bu ñu sukkandikoo ci ay taalibi sëñ Tuubaa lañ te sëñ Tuubaa rek lañ am mooy sëñ Tuubaa waaw safar gi yéen la woon lu baax la lu doon def loo xam ne yéen daanañ ko def fii ci roq bi ñu nekk ci fukki fan ci safar daanañ ko fi def waaw di bernde jullit yëpp di ci barkeelu ak di ci xewlu waaye ndigalu mun Muntaxa moom mooy suñu lépp ñun mur ndigal sëñ Muntaxa mooy sëriñ Tuubaa kon màggal gi bu demee ba ne safar bi nañ ko defee nii nu mu ko waxee rek noonu lañ ko defee comme yàlla daa dogal nit ñi dañuy def ay baas def seeni xasaayit alxuraan def ay bernde lépp ngir gunge ko gunge ko bis bi ñu dem ba si yàgg loolu nag sëriñ bi daal ni comme jamono ji ñu ak contexte bi laaju ko mun na ñëpp daal di topp ndigal def li docteur yi wax. sëriñ bi moom di xamle ne ab taalibe jëfe ndigal rek mooy li ko war ndax sëriñ Muntaxa moo fi nekkal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ak it di ñaax taalibe yi nga xam ne seen i jëf méngoowut ak ndigalal sëriñ bi. ndax uh, murid moom. ndigal te fi mu nii sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa ci kaw suuf maanaam bu nañu woon bàyyi leen màggal gi bu kenn màggal sax ñu amee ci lu lu ñu amee ci li ñu sëñ Tuubaa diggoon ca bisam ba. sëriñ bi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom muy xamle ne xaalis bi biñ daan defee safar gi nañ ko téye te waajale ko bis bu màgg ba di 18 safar. safar dañ daan financé xaalis bu bëree bëri bëri xaay boobu ñuy financé nag buñ ko jekkoo buñ ko financé màggal dañ ko gën a jekku. xaalis bi lépp nañ ko def ci bisab sëñ Tuubaa bi bisab safar bi. nañ ko ci def bisib la 18 safar nañ ko ci def ndax doy waar ndax dafa doy fi mu nekk nii li ci li ci tënku dafa bëri ndax am na ci ñoo xam ni sax ndeysaan dañuy dem di màjjal di sonal di sonal nit ñi pour dajale ko pour def ko bisu safar parce que koñ bii defoon nañ ko daaw il faut ñu def ko ren te loolu du lis du diine lu seexul xadim lim gërëm. ak lu mënti xew fii ak ay fan yu néew dox suñu digganteeg màggalub Touba askan wi yeewoo ci dëkk bu sell bii di Touba seeni xar kanam ubbeeku lool ak mbégte ngir jëfe gi ñuy jëfe ndigalu Seex Muntaxa Mbàkke ak di gën a wàcc màggalub Touba gi ngir di wane ne mbégte murit yëpp la